complot fii Sonko nañ ko tijji Sonko nañ ko tëj nañ jaar fee Macky def na lii lii di gërëm ay Macky Sall di tagg Macky Sall pour quelle raison tagg Macky Sall mu xëy def la benn ministre wala nangam fii ñaata yoon lañ fi fal benn ministre boo xam ne ñu ne soi-disant c'est un ministre intellectuel mu toog biir université bu ko ay ay nattangam gisee di koy ree kek kek ñaata yoon ñaata yoon maanaam ministre da ngay nekk model directeur da ngay nekk modèle buñ lay fal ñu fal la te yàlla tax parce que yow nang nga fay nekkal sénégalais yi. Hmm. booy lekk nga lek lu lew boy wax nga wax lu leer mais soi-disant ministre soi-disant député ñom pour ñom euh ministre la la moy yow ngay gis benn ministre bo xamné ni xola

dans le système ou bien il sera anti-système. Donc, nous avons carrément c'est un candidat anti-système. Voilà une continuité du système. Mais le parce que avec anti-système non, non, bien sûr, parce que d'abord beaucoup de mouvement fit hmm. avec des hmm. candidats anti-système. Moi, nous ni que peut-être Vietnam. Mhm. Il fait parmi des, anti-systèmes mhm. ou bien il est avec le système. Parce que le système, moi, maintenant, la politique classique. traditionnelle bo xamanté mom mo fi nek depuis 1960. Mm-hmm. dara changé wu fi. Mm-hmm. ñom Ousmane Sonko ñom ñu melni Tayrou Sar mm-hmm. woote une nouvelle vision. un autre type de Sénégal un autre modèle de Sénégal. moy manam rompre avec le système qui est là. pour andi benen système bu bees bo xamanté né sénégalais dinañu mës dinañu mëna gis sen bop moo sénégalais yu bari chaque fois dañuy la question ndax vieux il est avec le système tay bu présent ou bien il va rompre carrément avec le système. ok allez-y xam nga daf ne rompre. Hmm. man gis nga bu rompre dafa dafa dafa sax dafa hmm. mais man réinitialisation wax. tout effacer hmm. raxas ans non mais attends Fallou suma né raxas xam gis nga déjà système tricherie bi dafa dafa système maay président sama mbokk laay fal wala maay directeur sama mbokk laay fal dafa war dakk ci dëkk bi maam jël benn nit boo xam ne nii amul benn compétence compétence su àdduna nga fal ko ministre wala nga fal ko benn genre directeur dafa war dañ maanaam Sénégal lañ fi war a raxas bëri na bëri boo xam ne nii su ma toogee fii di la koy du ñu fa jóg sànq wax na affaire de continuité gis nga ñoom buñ jàppee ne mën nañu nax sénégalais yi seen mbopp la ñuy nax. gisa nga continuité xam nga ko moom. Hmm. yàlla suñu borom. nit mën na ñëw nekk président 2024 bii nii fekk Macky Sall defoon fi ay projet yoo xam ne nii xaw ma ay yaakaar moo gën ci Sénégal yi. Hmm. kooku ñëw dindi ko teg fële. innové ko man mii di wax ak yow nii dama ci kanamu caméra la wax man musuma bokk musuma bokk. système bi musuma bokk APR musuma bokk euh, PASTEF musuma bokk ci ci ci ci ci ci yeneen yeneen go kii xaw nga lu ma mos def man chaque fois dama naan. xam man laay xeexal. Mm. man si Sénégalais yi laa bokk. Mm. maam man lu Sénégalais yi gëm loolu laa gëm li nga xam ne mooy njëriñu Sénégalais yi ci loolu laay dox mais ñëw dox ci ginnaaw Macky Sall pour lan pour sama intérêt pour Macky Sall fal ma dara pour lan. lu tax loolu ma dem Macky Sall fal ma benn directeur may may fayeeku salaire de cent poste ngir lan ak samay njaboot kese yi nag à côté nag ñiy dee si géej gi nag ñi xam ne amuñu xëy nag pour lan. pour lan mais Vieux Thiam Macky la woowoon nee la kaa ñu waxtaan comme idée yi ngay joxe. nga jàppale ma ba nu ma matérialiser exemple ak képp cooro mën tok toog mu nekk le système est-ce que pare nga peut-être pour dem changer le paradigme. gis nga Fallou man déggoo ma xam nga Macky Sall nga wax en tant que président. Hmm. mais dama ne bu ma ci mbedd mi un mécanicien woo ma ne ma grand bëggoon na nga jox ma sa xalaat lo xam ci auto bi ni di yebbu étudiant yi di yebbu élèves yi dinañu déposer fi parce que yow au moins euh, euh, tu es expert en en éducation no ci xam. Hmm. damay dem hmm. mais pour xamal la Macky Sall bu ma woon peut-être président dañ koy wuyu dañ koy wuyu déglu ko. mais wa, force la. Mm. man dama war a wuyu Sall force déglu ko. waaye mm. mais je vous le dis et je le répète. Mm. buma won pour faire le ministre je serai pas prêt su won pour le directeur je serai pas prêt là je le dis. Euh, si mais le ministre euh, de euh, l'Éducation. supérieur l'enseignement supérieur déggu ma la. je ne serai pas prêt en deux mois des élections en deux mois des élections ba pare aussi gis nga là. li ma gis nii man ko gore là. gis nga Macky Sall mi ngi may là. dama ñu ma atu ma ne ko xaar Macky Sall bi may seetaan gis nga man ñi ma gisee moo doylu ba ma woon di may fal di may jox ay milliards suba suba pour ma jaay sama ngor ginnaaw suba ku ko yaakaar ci man daanu nga xamul ma gëm hmm. sincérité man sama bopp nañ ko teg à côté avant tout d'abord les sénégalais bu ñu lijjantalee problème sénégalais ba problème sénégalais yi net ñu hmm. doog revenir pour parler

gis nga non defulumako defuluma ko état defuluma ko yaay ku góor ki wala ku gor ki wala kenn ki xam nga hmm. dama ko defal rewmi hmm. tay man buma nekone bour exemple ci rewmi ni hmm. xam nga du soxla daal di rafet du soxla monte bu rafet. xam moy soxla. duma nelaw duma ma gis parce que chaque jour maa ngi xool lu neex sénégalais mission mission sénégalais yi rek lay dox. mais ci loolu missionnaire la envers les sénégalais. ci loolu lay dox ci loolu la nek jaajëf merci beaucoup Vieux Thiam ñu koy remercier bu baax a hein c'est euh, une émission 17-18 euh, passé na sax suñuy waxtu parce que tellement que débat bi mo xawone am solo bu baax ba et que de temps à temps c'est important d'aller aussi si euh, li nga xam ne de technique alors à la dernière minute aussi bien information la brigade de protection de la sûreté urbaine di li nga xam ne SU mom nak bu ndakaaru bi nga xam ne itam mooy daal di li nga et d'autres et tant d'autres

wala ay gamee lan rek dafa war a daf leen war a exposer loolu moo tax peut-être mu dem ba xelu Sénégalais yi di poser wu la question est-ce que kii nekkul di wut xaalis si gamee yi peut-être loolu rek la mais ak lu mënti demee rek euh, euh, nañ ko teg ci yoon nañu xam ne aussi intention am du ñàkk ne peut-être pour dimbale xale yooyu la. parce que ay xale yoo xam ne dañoo amuñu waajur nga jël leen uuf leen ak lu ma demee kooku intention bu baax na. Mm. kon lu état bi di man ci def rek ëllëg mm. rek. Mm. nañ ci xool loolu. ñu jàppale ko bu dee dafa am lu muy rectifier. ñu bàyyi ko mu rectifier ko parce que man dèjà man xaw ma ne la ma joor wax dëgg fa la ma koy seetaan rek mais xaw ma ko xamaanuma ko mais xam nga orphelin moom dafa xaw luur Mm. nga jël ko teete ko ba problème yi amee ci natt bi am ci kon lu mënti amee rek nañ ko nañ ci seet nañ ci seet suñu borom quoi ñu jéem a waxtaan ak moom xool lan mooy solution bi ba pare aussi état bi lii rek wala leen yay lii rek wala leen yay ñi mettre en place des centres yoo xam ne nii mm. c'est pour les orphelins mm. ñi dimbale orphelins yi parce que tey bu ñu ko def bu état bi defoon loolu tey heure bi du euh, Ndella Madior du ñemee def du ñemee jël xale mission mission ci côté boobu noonu moo tax moo tax moom peut-être mu dem ba am idée boobu même lu mu ci mënti am wala lu mu mënti demee aussi mm, mm, mm. erreur la nañ ko ko baal mais teewul aussi après état bi mu rectifié wu moom si boppam dem fexe nu mu créer des centres yoo xam ne nii pour xale yooyu la di lay gërëm di lay sant bu baax a baax Fallou di wax de émission bi neex na ah. di wax de yàlla na si jàmm daal am daal incha allah incha allah alors euh, peut-être ñi ñaan euh, li nga xam ne que moo di justement euh, ñu daal koy oyofal franchement ñun dem nañ këram

parce que s'en kenn mm. tout à mm. travers là donc mm. xale yi dafa xale yi dañoo bëri macha xam nga man dama lay damay yok touti ci lu wax. parce que la bu demee ba jël courage bi. Euh, normalement lo xamante état à ko am. parce que euh, amoon état à amoon na sañ créer ces ces genres de centre d'accueil de bébés mais comme état defu ko. Ndella xëyul tëb noonu organi def def defal ko boppam. parce que dafay am licence d' exploitation. te licence boobu je crois que ñoom ñoo ko ñoo ko ko jox. maintenant bu fekkee reconnaître na ni que Ndee Ndella dafa am pouponnière. Hmm. état dafa war a am subvention bu mu koy jox chaque hmm. année. Hmm. Ça, c'est un droit. Mm. Parce que ces bébés-là, aussi, c'est des citoyens sénégalais. Mm-hmm. C'est des bébés comme tous les bébés. Okay, Donc, l'État mo wara taxaw xalé ñu baña sét la mo ubi entreprise donc Dañ ko waron parce que mm. il, nourrit des humains, mm. des, des, des enfants. Et, aussi maman et le oh, Oui, tay dem na dem tay ba est comme motif. Mais collé comme motif bobu dama japp que peut-être si bu que ndéla la na lo xamantene waru ko def il faut aussi peut-être euh, ñu seet ci euh, le bien qu'il a fait. ok parce qu'il faut pas aussi jël tout ne li baaxul baaxul nga ne li c'est négatif nga nga bëgg a jël affaire yépp nga ne baaxul. Hmm. da ngay seet un peu ci lo xamantene ne ne serait-ce que lu baax lu mu def. Hmm. nga appuyer ko jappalé ko bu féké mën nañ ko jappalé ñu jappalé man je sais que peut-être bu féké dossier bobu kessé kessé moo tax sûreté urbaine jël ko moy manam xalé yi ñuy gis loolu c'est pas une chose c'est pas une chose difficile à gérer. C'est clair donc nous ñoy xol état moy xol euh, lu muy def alors jaajëf ñukay massa bu baax merci beaucoup Arfan merci beaucoup aussi euh, ki nga xamné que euh, alors l'équipe de votre émission 17 18 fi dadi Yamagien, Taïsi, ak yéen tay si numéro bi on est jeudi justement on se retrouve mardi prochain Inch'Allah, si benen numéro bu seen émission li nga xamné 17 18 merci beaucoup à l'ensemble des équipes en régie aussi de nos programmes notre compagnie Kantar jox à partir de 20h30 ci si mu gën ak équipe 65 Modou Niang ak ki nga xam ne de bu programme